jëre ngeen jëf mbokk yi kon ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziaraat leen bu baax a baax ñoo ngi ànd ak yéen ba tey ci bis bu tedd bi nga xam ne nii Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke jox na ko ndigal mbooleem jullit yi ak taalibe yi rawatina fii ci Touba ñu jàng alxuraan jàng xasida zikrullah leen ko ànd ak yéen suba ak léegi nag ñoo ngi fii ci kër sëñ tubaa gi ci euh, salle bu mag bi fii nag di jataay bu tedd boo xam ne nii gis nañ fii njabootuk Serigne Touba gépp ñu teew fi loolu moo tax nag ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen ñu fas yéene yëkkati kàddu gi jox ko sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abdoul Lakram Mbacke mu yëkkati ay kàddu rek jëmale ci bis bi ndigal li ak lépp loo xam ne ni rek dana ko soññ ñeel mbokki taalibe yi nga xam ne ni ñu ngi ñuy topp ci réew mi ak bitim réew ci média bu fasantikoo ci yoonu murit kon sëñ Moustapha ginnaaw nuyoo ak bisub tey bii di bis bu am solo lépp wékki ci ndigalal Serigne tubaa Cheikhul Khadim di Serigne Mountakha Mbacké ñu gis teewaayu njabootuk Serigne Touba gi fii tey jii ñu àndak ak moom liggéey bu am solo boobu bisub tey bi yan kàddu ak ban jàngat ngeen ci am. waaw bisimilahi rahmaani ci am mooy bi nga ñëwee. njaar ci Seex Mamadou Mourtada mu jox ma ndigal kon njàngat li njàngatal ndigal la njàngat li rek loolu ci lay tàmbale ndax euh, Sëriñ Tuubaa nii rekk la nii la tàmbale woon yoon wi Sëñ Muntaxa bi mu ñëwee topp ci tànki kilifaam yi fi jiitu baag si ci moom jàll nag def loo xam ne ku ne xam na ne bayu tool bi mu mu boy ndax mbokkam yu tedd yii fi teew di ñi nga xam ne la la la nu sëñ Saliou waxoon ne maam yi ñoo ruujoon tool bi kon mbokki sëriñ bi bi mu ñëwee ak xar baax bu mag bi mu indaale ba indil nu yoonu murit nii rek la ko sose woon fekk jikko yi yàqu mu fexe ba defar ko waaye ku ne xam na ne tey jikko yi gënati naa baax jikko yi negut ba na gëne mu yàqu dafa baax léegi lay wax ak sëñ bi ci biir mu di ma xamal ne ma imaam de ci mag lañ ko séenu waaye ci ndaw yi ci la ci la ci ci ci ñoo ko gën a man nag ma dollil ko ci ne ko ak aj màkka kon njabootu sëñ Touba gi bu fekkee ne ñoo teew nii ci jataay bi nu toog nii du su mën a lim ñëpp waaye sëñ Mourtalaam sëñ Fàllilu mii bu toogee mel ne jataay bi moo mag ci njaboot gi wala boog ci sama gis-gis gisuma ñëpp waaye ginnaaw moo ma jox ndigal moom laay waxee ci waxam ah bi nu toogee ci ndigal la ñuy dox ndigal li nuy dox nag mooy jàngataat ci bisu yi ñu woote ak bi si jàll nga xam ne réew mi ku ne xam na ne nun baykat yi tiitoon nañu yaakaar naa ku baykat it tiitoon na ñu dëgmal yàlla ci alxuraan ak taggi sëriñ Tuubaa yi nga xam ne yii ci yàlla la ko jëme akub yonentam yii mu jëme ko ci yonante bi lii mu jëme ko ci ñaan ñu boole ko xaar bis bii tey ñu tëje ko bi ma sëñ bi wooye démb ci la ma ne dañ noo far gàttandu nag ndax tey lañ bëggoon a tëj yàlla gàttandu dem euh, daanaka waxtu wi démb far yàlla gàttandu kon loolu dañuy dañuy tënkuwaat ci ndigal li ma tàmbalee murit yi liñ ñu war a def mooy bàyyee sëñ bi tum bi nii ngeen def yéen nit ñëpp def ko doon benn benn benn benn benn jëmm bañ wut ñaari jëmm koo mën a xool sëñ bi lay xool te tey tey sëñ Muntaxa moo fi Sëriñ Tuuba nee naa ko léegi dem naa témoignage démb ci yow ci kanam ay ministère man 48 ans la ànd 48 ans yi nu ànd amul dara dara loo xam ne nii gisaat naa ko ci jëmmam lu dul ak mage waaw bu dee ca jàkka ja la bu dee ci wérd wala bu dee ci njàngum alxuraan bu dee ca xaside ya noonu laa ko gisee bu dee ci silatu rahim noonu laa ko gisee ak bokk yi dara sensé wu ci ku mel noonu nag sëñ bi bu jiitee njaboot njaboot ga bu ñu bëggee jàll bëgg a dem fa mu àgg dañoo war a amub yar ami teggin di ko déglu bay kenn ku ne fu ko neex rek mu jëme fay waxam walla mu jëme fa jëfam jëf ji jenn la sëñ Tuubaa jëf te noppi na ci kon daal sëñ Mourtala ci gàttal euh, man bu ma duggee ci yu mel nii damay mën na maa dem ba aal dugguma ci ndax man li may faral di wax ñu di ma ree man murit laa waaw du ma dof nag waaye murit la waaw murit dafa war doon nit te te bëggaat sëñ Touba ba du ko yemaleeg dara da sëñ Touba defal nañu loo xam ne dañoo jomb kon ñëpp dañoo war a tënku te kenn doonu fi dara ku sëñ bi buñ tënkoo ci noonu nag xam ne benn kilifa moo fi ne muy Cheikh Mamadou Mountakha ñu jox ko nos bi di yër waxuma di xool ak déglu de di yër ba xam fu mu jëm nu jang jëm fa rek ni ngeen def rek yéen man ma ne ma ne naa def junj ci yéen bu ngeen fi njëkkutit jàmbaar ngeen waaw lii may wax nii di ko wax ci ndigalit bu fekkoon ne mënuma ko wax sëñ Mourtala dama koy jéem mu jéggal ma ma joxe ngànt bañ a wax kon li ngeen def nos bi ngeen nos njàngat bi mënees naa xoolaat ci yéen waaye njàngaleem sëñ Touba nag moo jiitu lépp ba ngeen jàng ci nun ñi ñëpp boo ko xoolee kenn ku ne mbokk jabot sëñ Touba gi fi teew te sëñ Touba defar lépp kenn ku ne mënoon naa bañ a gis moroomam te tedd nga am di jàll kenn mënulu ci kenn dara waaye lii bu amee nag tey Cheikh Mouhamadoul Basir man de ci yor-yor bi la ma woo waaye fekk sëñ bi woon na ma demb waaye dajale bokk yi bokk yi njàngat lu rëy amaat na ci waaye waaye nan boole suñu bopp ah? waaye nan boole suñu bopp nan sagal sëñ Touba nan ko def ndax amuñu lu dul moom te te mbokku Mbàkke moom ni ma ko jisee kenn bonu ci waaye demaleeg fekkale mën naa indi lu ne nun nañ xoolaat suñu bopp nu xoolaat majlis sora biñ doon def ak yooyu yëpp nañ boole waat lépp jëbbal ko sëriñ bi respe bi doxoon ci mag ñi ba tey ji nu jalaat ko jëmbat ko ci gone yi ndax gone yi ñooy yaakaari ëllëg ndax ñi ci ëpp ci jataay bi ah man xam naa juróom-ñaar fukki at kon ku mag dana ko romb te ñàkkul ku ma mag a ngi fi kon te sama tiraanga kenn mënu ci dara nag moom ba ilaay muy fasoon sëñ Touba defar na lépp kon nanu xoolaat suñu bopp nun nun bokk yi fi ne te nosuwaat kii bu ñuy jàngat ci ak taalu bu boo agsee dangay ngay taxaw ndax euh, euh, dafay jooy man mii damay jooy gis naa ñu mag ñoo xam ne nii dañuy jooy ndax pas-pas bi moo àgg foofu nin nag mënoo koo bëgg yilif te li nga xam ne moom la nàmpatal wanoo ko ko nañu bàyyi loolu nañ yéeneente jàmm ndax bis bi wane na ne sëñ Touba rek moo fi ne ñëpp wuy si nañu ba may dugg dëkk bi ak léegi jàkk ju ma romb fekk naa mu fees mbedd yi ñu ngi togg ci du fii rek ngir jëmmal wooteb sëriñ Touba ndigalal sëñ Mountakha kon fi ma tàmbale woon ndigal daal jóg na def nañ ndigal li yàlla ci boppam bu yónneem kenn sëñuta dem ñu ne dañ may yónni ndare bu di yàlla la yónni yonent amatul sëñ Touba dikk na liggéeyal yàlla liggéey boo xam ne bu fekkoon ne dañuy indiwaat kuy taxawaat di wax kuñ ko laajoon réew mi yëpp dañ naa nañ dem seeti ko Touba tey tey jii boo doon laaj ki kilifa jullit yëpp waxuma senegal de bu ma ko waxee nag man nañ ko critiquer ndax murid laa waaye dañuy ñëw seet sëñ Muntaxa fii ana fu ne waaw kenn ku ne sa yaakaar yi biir ak sa biti rek laa wax ndax man ñu bari laay waxal kon nag nanu tënkuwaat te fonkaat sunu Tuubaa gi fonkaat sunu sëñ Tuubaa gi fonkaat sunu kilifa yi fi ne waaye nag ñun ñëpp nag nu nosuwaat ci sëñ Tuubaa Seex Mamadu Muntaxa noo leen di ñaanal di ñaanal ak ñi ngeen àndal liggéey bi yëpp di ñaan yàlla eh, niñ ko ni ñu sëñ bi doon sagale bareen ji sag bi gën a ndax bu ngeen masaa noppi daanaka mu taw tey nag taw bi da leen a jiitu ba ñu day ay baykat sax xaw nañoo mën a joxe ngant ne doy na bu doon ñooy ñooy doyal kon nag loolu rek laa bëggoon a wax sëñ Mourtada eh, di sant bokk yëpp di leen nuyu di ñaan yàlla teewalaat nu fi ay déwéni déwén waaye balaa déwéni déwén ñuy teewalawaat ci sunuy bopp ci lu dul ay dëj ak ak ak sarax nu seeteente nuy xoolante nu yéenente jàmm nga xam ne kenn ku ne sëñ bi noppi na ci yow wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa salaam wa rahmatullahi wa barakatu kon doon kàddu yu am solo yoo xam ne nii mu ngi bàyyeekoo ci Serigne Moustapha mbake moom Serigne Abdou Lakram lii nag bi benn ci jataay yi gën a tedd ci bis bi nga xam ne nii bis bu tedd la bisum ndigal ni mu ko waxee ci kàddu yi am solo yi mbokkum taale bi mu ne mën cee daal di jëlee nag bind ngir mën a jëriñu ci Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasul di leen jaajëfal bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa bi xurmatil quraan wa bi rasuli bi barakati xurufil quraan wal ahadisil qudsi wa bi xurmati xurufil qasaidi